bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen sen ci sen écran samsul huda amat Samsung samsul huda amat Samsung TV mooy 3, télé Samsung TV mooy seen télé di leen ko TV ñooy suñu télé Samsu TV mooy suñu télé di leen ko seetaan mooy suñu TV mooy suñu télé di leen ko TV ñooy suñu télé Samsu Samsu Samsu Samsu TV Samsu TV ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bege ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bege ba aljana di ko bege waay aljana te di leen baal yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen sant jotaay bi teewaay bi mu ah, ngeen nekk ci lu yàlla gërëm ndax lii dara ëpp ko solo ah, yàlla na leen yàlla defal jàmm ngeen àgg fa ngeen bëgg a àgg ah yëg nañ ci jotaay bi lool ah nga xam ne mooy ustaas mi daam ñu ngi koy ñaanal yàlla fanam mu gudd ba liggéey bi nga xam ne sumb na ko mu àggale ko ci nu mu ko soobee ah, yàlla yàlla yàggal wéral leen yokk seen xel bàyyi leen ak seen jàmm ah, mu mel ne moom wax dëgg yàlla at mu jot ñu def lu mel nii ah, ñëpp bëgg nañ ci ñu ngi leen di ñaanal ak yokkute rek képp ku fi teewit yal na yàlla faj sa ajo la nga xam la nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal waaye daal na ngeen gën a góor góorgóorlu bu baax gën a fonk diine ji alxuraan dara ëpp ko doole moo jëkk moo mujj gane àdduna mooy jëkk ci yow booy dem mooy mujj ci yow loolu nag ku ci ne bay ba nga xam ne nekkoo ci ay caaxaan te bu leen ci boolee dara ak ko kenn ku nekk ah nii ngeen àndee ngeen ànde ko seen lépp ah moom la yàlla bëgg bu ngeen teqalikoo seen doole dana néew seen kàttan sero lay doon kon na ngeen gën a takku gën a booloo gën a juboo gën a fonk ci lii ngeen di def gën a fonk seenu sëriñ ndax sëriñ moom ku na la wóor ne ku seral xolom la ngeen di wut yow yaa ko ci jëkk am bu ngeen ko ci amee ba pare it moo la ci ëpp moo la ci ëpp barke moo tax ma koy defal wule waay ngir de santu ko tajwid de man na ko te maarij ya man na ko ndigal ya def na ko duma xaarit bàyyi ko day dal bu dee tari du ko yeexee na kuy jëri du nging bu dee tari da koy leeral ma déggu ko mu seggee sa jukki ba dañu ko war ne ñor na ko buy jàng jom ja tax sama xol neex ma sopp ko ma teew nan lay defee su ma wuutee nan lay defe duqaa ma wuuti ko ba mu def lool defee ko bu wàccee damay jege bëgg ma tax damay jege su ma juumee ba gëddu ko sama xol jeex ma reccu ko du toog di jayyaxu wala muy xool ne kom raxu kàng mi sama loxo du ma juum ba door ko saba fu depp ruq xam na ko ka day dagar demi bar fat loowu ko idgham bi gunnaya idgham ghayra gunnaya saa kàng da koy joxe na mu da xam na win ya day dikk dana ànd ak saakina yaa hizaar ya day dikk lu di eq faa mu jox la ko juróom mu aaya ya bu mu eggale ca lay taxaw waxaf da ko ñemee fu mu eeg see fa wan la ko du jum ca màddi ya lu ñu mel na sax jaa aka xajjal la jaa aku moom ba mu doy sax jox la ko xam mais naqar fusa la wax mukk sa limiin ak taañu tomm ko ku ko wax saa de yàqu ko xaalanku mas ko yot ku ko wax xaamu weddi ko ay nun ñu mas ko yot ku ko wax xaamu lonku ko alxamdulaay sa xëye ku ma jàngal xamal la ko alxamdulaay tere ku ma jàngal mu bàyyi ko ay nun nga jàpp ko la mu tollool di xaalami kuy jàng xaalami lu mu taataan ma këpp ko alxamnu laysa xaalan ku tomb ko la mu tollool di xaadi dang xaagaa ngi yow xarit ku ne xaadim de wax na ko xaalan ku tomb ko wax saa de ko ấp à nhu mà cái chú có vào ha này rồi nu có ai nu nhu mà cái chú có vào mới biết chứ có ai nu nhu mà cái chú có vào ha một lần có có xin nắc để có mua ul có có yan yết tên nào có sa Japal ne ton go ko lu ko to ya de so pi ko sin go toy ma ka ya tu kula la ne ko sa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 ñu uh, ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu uh, ñu ngi dokkeel suñu xarit suñu doomu ndey suñu soppe suñu kilifa mu oustaz Dame Sall di ko ñaanal yàlla bi nga xamante ni daf ko tàmbalee ba tey xool si ku ko sant xool ci ku ko gërëm xool ci ku ko fay ndax ñett yi nii bu ko si doon xool kon daara bi fay na bu yàgg waaye mu ngi ciy xool jëmmu yàlla subhanahu wa taala yal na ko si yàlla defal lu rom njortam di ndokkeel itam xale yi nga xamante ni ñoo doon tari tey rawatina soxna tur bi ah ndey tend rawatina soxna Ndeye Penda mi nga xam ni bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yenu Qur'an ci kaw suuf te yàlla suñu borom yeneen bi nee na ahlul Qur'an ahlullah wa ñi nga xamante ni ñoom ñooy mokkal Qur'an di ko jëfe ñooñu ñooy ñooñu yàlla ñoom ñoo ànd ak yàlla ñoom la yàlla àndal kon soxna Ndeye Penda bul am dara dara looy tiit ci àdduna parce que bokk nga si ñooñu yàlla bis na nga tey lépp loo doon def wet ci lu baax jàppal ni nag saa yoo yeewoo rek war ngaa weddi sa bopp war ngaa def lu ko parce que bokk nga ci ñi nga xamante ni xadra ilaahiya léegi fële la yàlla di xoolee ci gaañu baax ñi kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ànd nag sama xarit tonton Leyti moom mu ngi yore jardin d'enfants moom oustaz Dame ñoo bokk liggéey bi ak sama xarit ak Bakrin moom tamit mu ngi yore daara fii nii ci kanam ñoom ñëpp ay sëriñu daara lañ liggéeyal yàlla fa tabaarakallaahu yal na yàlla dooli jàmm yal na yàlla dooli sutura yéen ñi nga xamante ni yéenay filmé député suba ba tey ngeen nekk seen liggéey bi ngeen di def yal na si yàlla defal tawfiix defal leen si réussite totale di jeexil nabil Moustapha wasalaamualeykum wa rahmatullah wa gannaaw loolu rek ñi ngi rafetlu ci seen effort yi nga xam ne def ngeen ko kenn ku nekk la nga man ci yitte ak ci taxawaay ak ci yéene def nga ko moo xam teew teewal la moo xam teewal ñàkk teew am gàllankoor wala amun yéene teew te yàlla dugalu ko amun yéene teewal te yàlla ko lu ci nekk rek yéene la seen yitte yooyu nga xam ne yéen a ngi koy def ngir rek école bi avancé moo xam ci parents d'élèves la moo xam élève la moo xam dëkkaloo dëkkandoo la moo xam bailleur de fonds la moo xam comme ci mën a doon ñi ngi rafetlu taxawaay yooyu nga xam ne yéen a koy def pour daara ji di daaray Adja Fatou Sylla la jëm ca kanam nga xam ne daara la joo xam ni ñi ngi ko sos ci atum 2008 fii ci Fass Dieg Saw ci ndimbalal yàlla kon nag ñu koy sant yàlla ndax bi ko yàlla defee itam ñu sos ko yàlla may nañu ci ay résultats yoo xam ni ah du benn du ñaar du ñett euh, yu limu ci kàttanu yàlla ak ci nameelam ak ci bëgg-bëggam ak ci dogalam mu jaarale ko ci ñun ak ci yéen ak ci mbooleen ku ci jàpp waaye lépp suñu boroom la ndax yàlla dogal na am na fi ñoo xam ni am nañu fi ay shahada ibtidaiya am na ñoo xam ni sax fi la ñu amee iadaadiya jall ci yeneen école am fa bac ba tey am na si sax ñoo xam ni waxuma la université mais tey yàlla def na am nañu licence te yàlla buñ doon lim seen jaar-jaar ci wàllu jàng jaar nañu fii ci daara ji di amaat mbégte rek ci conférence bi nga xam ne tey taxawal nañu ko fii ci kër Serigne Louga Est ci Fass Saw ren mooy fukkeel bi yoon ak ñett ñu koy taxawal ci at bu jot ci kàttanu yàlla ñu def ko ngir terale ko sëriñu daara yi waaye terale ko doomu daara yi waaye terale ko koñ bi waaye terale ko diine ak mbokk jullit yëpp fu mën a nekk ñu def ko ngir gën a dundal alquran wala gën a dunde alquran ndax moom moo ñuy dundal tuuti ukulaha kulla xiin di sant itam mbooleem élève bo xam rek jaar nga ci daara ji amna fi ño xam sos nañu ben groupe bo xam groupe daara Adja Fatou ñu ngi fi tew du ñak rek seigne ibrahim jël kàddu ah édition bi nag tay ñu déggee lool lool ko suñu xarit suñu kilifa sëriñ Xasan sek nga xam tay mo ni xarit bi général Thiénaba waye ak suñu bàyyi suñu wayjur El Hadji dam Diop comme noonu itam la défé won Euh, marraine bi soxna su baax soxna Ndey Jóob fa tabaarakallaahu ak tànde xari géey defoon invitation d'honneur bi soxna Coro Njaay Jong ak monsieur Gaye Modou ak monsieur Jibi Diallo fa tabaarakallaahu seen yéene ak seen taxawaay ndax fa ama zabadu fa yazhabu jufa nit taxawaayam bu amul sukkandiku bu dëgër taxawaay du dara fu mu fa jógee rek fa la yem waaye wa amma ma yanfa'u naas fa yamkus fil ard waaye koo xam ne taxawaayam yàlla rek ko lal bu fa jógee itam nit ñi di ko jëriñoo li ci preuve rek école bii mu ngi nii ñu dendal nga xam ne tey ñu ngi ko duggee Moussa Gueye yàlla yàlla yokkale ay leeram du ñu jeexal mukk te santaatun gërëmaatun rek di dolliwaat ñaan bu baax ñi nga xam ni ñoom ñoo bàyyeekoo ci gox yi fasantikoo yi moo xam ñi nga xam ni te bàyyeekoo nañ suñu mbokku tuubaay suñu suñu mbokku Mauritanie suñu mbokk yu jógee Dakar suñu mbokk yu jógee ci village yi nga xam ne moo wër Louga ak ci biir Louga ak fu waay man bàyyeekoo suñu mbokk wàllo yi fii borom ñoom ñëpp teew nañ ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën a fay yiw yal na leen yàlla fay yiw kon sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen masawu coono ci bisu yiw bi ñu bew muy bisu alquranul karim tabaarakallah di ndokkeel suñu ustaaz suñu sëriñ tabaarakallah ustaaz Dame Sall ñun waa euh, groupe tabaarakallah génnee ci daara Adja Fatou ah formé woon benn groupe ngir taxaw ustaaz Dame tabaarakallah feddali suñu engagement ak détermination bi nga xamante ni si jaayante boobu ñu jaayante woon ak moom depuis ba ñu nekkee ci daara ji ba jóge fi fa tabarakallah ñu taxaw di feddali jaayante bobu nga xamanteni ni si duñu wax la ñoon yonent yàlla Moussa waxoon yonent yàlla Musa kéro ba muy dugg ci misra tabarakallah ba ñu démé ba ca buntu ba ñu ko idhab anta wa rabbuka fa qaatila fa inna hauna qaidun ni ñom nak neena duñ la wax lool loolu yonent yàlla Musa bu mu ande ñu téme tamee ba ñu war dugg misra nañu ko ah ñun kat fi dañuy yam demal yow sa yow sa borom bu ngeen démé lu fa xew rek bu ñu leen di rey ñu rey leen leen ndax ñun moom dañoo bëgg a mucc waaye nag waa groupe bi oustaz ñoom nee nañ fa tabaarakallaahu ñu ngi feddali seen engagement ñu ngi feddali seen détermination si sa jëmm ji fa tabaarakallah ak si sa daara ji du ñu den di ñaan waaye du ñu den tamit di génnee di leen daal di séddee ci am-am ñu koy bokk ak yow fa tabaarakallah ngir jëmmal daara ji ngir jëmmal sa tur fa tabaarakallah ngir jëmmal sa jëmm moo tax ñoom ñu nekk rek ñu ngi fay jéem a góorgóorlu di jéem a wane tarbiya bi nga def ci ñoom ak taalim bi nga def ci ñoom fa tabaarakallahu moo tax fu ñu dem rek fa tabaarakallahu daañ fa feeñal sa jëmm daañ fa feeñal sa jàngale loolu yëpp yaa ko def ci ñoom kon ñoom ñëpp ñu boole seen kàddu di la jaajëfal di la sant di la gërëm di la wax insha allahu rabbi ba yàlla di jël suñu ruux dañu ànd ak yow di la taxaw biir biir ak biti fa tabaarakallahu kàddu yooyu rek la mbokk yi déggoon takkoon ko joxoon ma ko pour ma jottal ko fa tabaarakallah ñu jotoon a dajale benn fond bi nga xamante ni si jotut a bëri tabaarakallaahu ndax avant Covid bi lañ ko commencé woon waaye Covid bi bu mu duggee boo xoolee activité yépp dafa mettre woon en rade tabaarakallaahu moo tax ba ñu reprendre lii di cotisation yi yàggul fan yi rek la moo tax ñu jotoon a dajale benn somme de 60 000 francs tabaarakallaahu ñu xeeb ko lool waaye pour ci conférence bi rek la waaye daañu defaat yeneen cotisation pour jëmbal daara ji pour jëmmal taxawaayu daara ji pour jàppale ndongo yi nga xamante ni si lépp lu ci war ci jumtukaay nga xam incha allahu rabbi danañ ko taxaw ànd ak yow incha allahu ba jaa daara ji jëmm am jëmm bi nga xamante ni si danañ ko dégg waxuma au niveau national waaye au niveau international incha allah daañu ànd ak yow di jaayante ak yow di jaayante ak yow ba loolu taxaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillah ay xale lañ de. nee na ay xale lañ de. waaye seen pas-pas rëy na. waaye pas yi ñu ànd ak fa tabaarakallaahu rëy na. ndax léeg-léeg nit génnee milliard. ndax léeg-léeg nit génnee milliard. fekk saful suukar sax. fekk saful suukar sax. ci kafe ci kafe léeg-léeg nit génnee dërëm. te léeg rek nit génnee dërëm. mu saf mu safal suukar géej gi yëpp. mu sox mu safal suukar géej gi yëpp. moo tax seen lii rëy na. moo tax lii ñu ko jox rëy na ci moom. bu ko mënoon a denc. nee na bu ko mënoon a denc. dama koy denc rek di ko xool. da koy denc rek di ko xool. xaalis. waaye xaalis nag. yàllaa ko bindee. yàllaa ko bindee. danaan faj ci sa soxla. danaan la faj ci si soxla. wala ma faj ci soxlay keneen. wala ma faj ci soxlay keneen. te daara jee tax ñu jox ñu. te daara ji moo tax ñu jox ko ko. comme ni ngeen ko ñaane comme nuñ ko ñaanee rek. bu ñu sañoon. bu ñu sañoon. balaa ñoo faatu. balaa ñoo faatu. waaye yeneen i jàngalekat. ñoo fi nekk ñoo fi ñëw. ci mel ni ñoom Isxaq. ku ci mel ne ñoom Oustaz Isxaq Ba. ñoo fiy joxe ay. ñoo fiy joxe ay dars ay. ay matière ay riyaadiyaat ay di ay riyaadiyaat. ñoom Oustaz Leyti. ñoom Oustaz Leyti. ci wàllu naxu. ci wàllu naxu. ñoom Oustaz Aboubacar ñoom Oustaz Aboubacar ci wàllu alquran ci ñoom Seyd Ibrahim ñoom Seyd Ibrahim ci wàllu science ci wàllu ku nekk ci domaine bi la yàlla sédde mën nga koy jàngale ci daara ji ci daara ji i koñ ak yeneen i koñ di ko ko jëriñoo ñu faatu ñu faatu bàyyi ko fi bàyyi ko fi muy continuer muy continuer ana sëñ Abbas ana sëñ Abbas Sall radiyallahu anhu faatu na faatu na ana école ba taxaw na du taxaw na ana école sëñ Sam ana école sëñ Sam Mbaye radiallahu anhu faatuwul faatuwul ana école ba ana école ba du ña fay jànge ba tey ana manaar ana manaarul huda ana oustaz man yéeme faatuwul faatuwul du ba tey fay jànge école boo dem école boo dem ka ko sos ka ko sos ci li ëpp ci li ëpp faatu na fa tabarakallahu faatu na al azhar al azhar sëñ Murtada ana sëñ Murtada Mbàkke radiyallahu anhu faat faatu na te ba tey ñu ngi ca ba tey école baa sañoon nag sañ ku sañoon nag école bi école bi fii ba niveau bac ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko xel. faatu faatu. muy continuer muy continuer di dox. yéene nañ ko koñ bi. yéene nañ ko koñ bi. ndax fi la ñu judd ndax fii la ñu yéene nañ ko Louga yéene nañ ko Louga. ndax fi la ñu dëkk ndax fii la ñu dëkk. ko lislaam yéene nañ ko lislaam. ndax moom la ñu gëm ndax moom la ñu gëm. kon ci tënk kon nag ci tënk. Tafa Seye Tafa tey rajo yi tey rajo yi moo ni ma moo ni ma bu ñu jàppee conférence bu ñu wax ma bis wax ma bis bi rek maay animé lépp maay animé lépp démb ci guddi démb ci guddi la duy oto la duy oto matériel matériel jóge guy mbët jóge guy mbët romb ngeer romb ngeer gi mu dëkk gi mu dëkk ñëw ba fii ñëw ba fii fajar fajar bi ñuy wasifa bi ñuy la ma woo la ma woo moo ma njëkk moo ma njëkk ci tànt ci tànt kon kooku amee nañ ko kon kooku amee nañ ko njukkal ah Moussa Boye moom it moom ci taxawaay ci taxawaayam baas baas seize seize luyewuñ ci dara luyewuñ ci lépp moo ñu ko jox lépp moo ñu ko jox ñoom oustaz ñoom oustaz isxaq ñoom isxaq ba ay moodu bay moodu ñoom layti ñoom ce oustaz layti ñoom ñëpp seen taxawaay seen taxawaay tax na tax na bis bi bi sonnuñu ci ci ci biir ci biir ak ci biti ak ci biti Seydaa Ndey Penn Seydaa Ndey sant nañu sant nañ la gisoon ngeen. gisoon ngeen. li muy daj. li muy daj. ak moom. ak moom. comme nag pare naa ci moom. comme nag pare na ci moom. bay boo ngeen pare. bay boo ngeen pare. te xam na ci yéen laa jëm. te xam ne ci yéen ñii la jëm. di sant waa Benno. di sant waa association Benno. ah mi ngi màttu de xam naa danaan métti na. mais nee na ngi màttu xam naa danaan métti na. association Benno. association Benno. bërki biig bërki biig. lañ fi ñëw lañ fi ñëw. ne ma dafa am lu ñuy métti. ne dafa am lu leen metti mooy bul jëleti chaise. mooy buy jëleti chaise. lépp ñoo koy def. lépp ñoo koy def. fi la ñu nekk. fi la ñu nekk ci taxawaay ci taxawaay ànd ak waa koñ bi ànd ak waa koñ bi xale yi jag saaw xale yi jag saaw bi yëpp ànd koog ànd koog xale yi samedi xale yi samedi ñooy ñëw ne ma sak samedi ñoo ñëw bëgg nga ñuy yedd dañoo bëgg nga ñuy yedd yedd ñoom tim seen taxawaay ñoom tamit seen taxawaay fa tabaarakallaahu waa association Teranga waa association ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant ci turu ma Sey ci turu Xalil Ndiaye Xalil Ndiaye ñu koy sant ñu ngi koy sant sant waa Thiar Ndiaye di sant waa Thiar waa Dakar xamna lu Sarr ñepp dal ci gàttal sayda ñepp dal ci bay Modou nga kon bismillah nga defal ñu ñaan defal ñu miskul khitam defal ñu miskul xitam ay maulana الله لا إله إلا هو الخير خير لا تأخذه سنة فلا نؤمن له ما في السماوات ما في الأرض من سأل سيسفه عنده إلى باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما ساها وسع كرسيه وسواء ولا بما ويشفعهما وهو الحليم إكراه في الدين قد طلع نفس من القي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا السماء الله والله النبي الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله قالوا سمعنا واتبعنا القران ربنا ذلك المسجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نعنا وأخطأنا ربنا ولا تهملنا علينا إسرا كما عملتها على الذين من قبلنا ربنا ما لا بهم وأنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا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 ما أتى بالحق إلا الحق وما هادي إلى صراط المتقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ne yàlla guddal seen fan yàlla wéral leen yàlla bàyyi leen seen xel ñu ngi leen di siyaara di leen baal àq te di leen baal àq di wane mbégte ci jataay bi yàlla na ngeen ko yàgg taxawee barke borom Tuubaa abonné c'est une YouTube. Samsung TV jant bi à cloche de notification bobé ngéni sen écran. Samsu TV suis télé. télé TV mooy seen télé dee TV ñooy suñu télé Samsu TV mooy suñu télé dee TV mooy suñu télé dee leen TV ñooy suñu télé Samsu Samsu TV ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee waa aljana